télévision Futurs Médias euh, yen ñi koy safoo ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di jaajëfal tey nag maa ngi fii ci Almadi ci kër kii di Youssou di président directeur général bu Futurs Médias pour benn entretien spécial ah. bonjour président. na nga def ça va bien ça <laughs> si loolu dinañ ñëw si actualité politique waaye dinañ dellu si waat xuusaat tuuti ci yeneen actualité li mel ni mbëkk mi dinañ waxtaan yi tamit li nga xamante ne mooy euh, coow li amoon diggante euh, kii di Aby ak Viviane moom suñu gan di Youssou Ndour boole leen njaboote dëgg la effectivement euh, démissionné naa si sama poste ministre conseiller démissionné aussi ci coalition bi nga xam mooy Benno Bokk Yaakaar donc pour wax bi leer mm-hmm. ndax politique moom dafa doy waar <laughs> euh, comme on di c'est un terrain glissant. léegi man maa lay dal c'est-à-dire dama bëgg. waaw ñu ànd ma dugal la fenn. Ah. pour ma gën ma tontuwaat la neneen bu kenn bu